auzu billahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fu waay mën a nekk ñoo leen di ziar di leen ñaanal jàmm ak gudd fan wér di ko sàkku ci yéen rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam dana seet bu la seetare wax la sarax wala sa càngaay foo ma dem defe jóg fa nga fa ñoo ngi leen siyaar baax a bax a baax baax di leen ñaan gudd fan ak wér di ko sàkk ci yéen nag rawatina yéen ñu abonné ci Daaru Salaam Chifaou Daaru Salaam Chifaou dana seet bu la seetee wala wala wala sa càngaay foo ma dem defi ji ko nga dem defi ji alam nasara yi ak alam tara yi bu leen ci ñaari julli fajar yi alam nasara rakka bu njëkk ba alam tara kay faarab ko ci deuxième rakka ba kooku dana aar nit dana ko may xéwal ñaar rakkay fajar kooku nag kuy naaje yeewu du ko man ndax ñaar rakkay fajar dañ koy julli avant ngay julli ñaar rakkay suba yi alam nasara rakka bu njëkk ba ginnaaw faatiha alam te rakka faara bu ka ginnaaw faatiha rakka suñu borom doon ubbi doon musal ci pexem noonu loolu moom yéen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko fi bàyyi te dañu loo xam ne day dox ci wàllu cat wàllu liggéey bu ci yaram ak leen lu xam day gàllankoor yaramu doom aadama lu ci baax la am ci njariñ nag ndax gis ngeen ko ni ñu ngi ko tënk ci li xul lii mooy xul onze bi falaq kii mooy xul onze bi rabbi naas ñoom ñaar boo leen boolee fukki aaya lañ ak benn falaqi juróomi aaya la naasi juróom benn aaya muy fukki aaya ak benn moo tax kii dafa baax ci lépp loo xam day gàllankoor doomu aadama moo tax Baye Moussa Ka woy na ko ne bisib keroog la yàlla wàcc saaru naasi ak fàllaxi wàcc ko xeeru naasi xam nga ne yonent bi salaa salaam mi nga xam moo gën ñëpp njébar jàppoon na ko bi ko jàppee tamit nag aay la suñ borom wàcce wàcce mu daal di wér boo xam la yàlla wàcc saaru naasi ak fàllaxi wàcc ko xeeru naasi xeeru naasi mooy gën yonent bi mooy gën ci nii mu yonent bi kon cat am na liggéey tamit dana jàpp doomu aadama liggéey tamit lu wér la surtout nag bi ci gën a gaaw mooy njibar ñay fas ak ñay wax yeneen tenikat yaag yëpp nga ci biir njibar daal lu am la moom yéen bi saa nag fukki fas-fas ak benn yooyu lañ ko fasal waaye bi bu jàng rek benn fas-fas loolu lu ci solo waaye rek dañ ko tënk bii ni mu ko néew mooy dama ko tënk ahamun saqakun xala un yasun mu ismu jalal muy lu yéem moom it ismu jalal googu tàng jër kon fàllax naas yi lépp lu ci waay bëgg ci wàllu loo xam day gàllankoor yaramu doomu aadama boo xamee yoon yi dana ca baax lool te gaaw ca kon da nga bind mi nga ko liggéey nak jar na nga dem ci daara ñu diggal la ko wala nga jar na nga dem ci sëriñ bu mu wax ko ñu bind la ko da ngay bind bismillaahi rahmaani rahiim yi nga bind xul en bi rabbil falaq buy première aaya li nga ci teg ahamun saqakun xalaun yasun lii mooy ismu jalal waaye lii nag yaa ngi koy baamtu fukki yoon ak benn onze fois moo tax muy leer Daaru Salaam moom dafa bëgg lépp leer nga jëriñ ci jëriñ ci keneen ahamun saqakun xalaun yasun lii ngay baamtu fukki yoon ak benn diggante aay bu nekk ci surtu falaq ba aaya ba jeex ba saar wa jeex loolu leer na nga dikkaat ci xool onze bi rabbi naas bind nga lee ba pare falax bi naa muy saaru njëkk ba nga bindaat ñëw ci xool onze rabbi naas ba nga bindee bismillahi rahmaani rahim xool onze bi rabbi naas première aaya nga dugal lii ahamun saqakun xalaun yasun fukki yoon ak benn ba jeex waaye ahamun saqakun ji xalaun yasun ji da koy baamtu fukki yoon ak benn comme ni nga ko baamtuwaat fii ci falax bi fukki yoon ak benn door a andiwaat deuxième aaya bi ahamun saqakun xalaun yasun da koy baamtu fukki yoon ak ben nga door indiwaat deuxième fàll aaya bi mooy xool onze heures bi falaq min sharri ma xalaq nga door indi loola ba saaroo jeex noonu lañ koy bindee boo dikkee ci naas yi tamit noonu lay demee boo bindee xool onze heures bi naas yi da ngay bind ahamun saqakun alamun yaslum fukki yoon ak nga door indiwaat euh, maliki naas yi daa ba saaroo jeex nga xam ne boo mm, mm, fàllax ak naas moom fukki lépp boo ko bale fukki aaya rek ak benn waaye lii nag da koy baam toujours moom boo paree nag bind ko ku nga teg ne nga dem nga wut pont ak fukki pont ak benn ba pare nga wutaat fukki puso ak benn yu ñëwagut ba pare nga demaat wut fukki fukki ak benn yoo xam ne nii eh, daggaguñ dara yu bees ñii lay ànd nga def ko ci saafara sa nga sangoo ko ñetti fan mën nga koo sangoo. mën nga koo sangoo juróom-ñaari fan bii mën nga koo fukki fan ak benn fukki fan ak benn mujj gi mooy daj dëpp googu nga koo sangoo fukki ñetti fan mën nga koo sangoo juróom-ñaari fan mën nga koo sangoo fukki fan ak benn mooy daj dëpp rek kon lu yéemale ci wàllu toj liggéey lu yéemale ci wàllu cat lu yéemale ci wàllu loo xam ne gàllankoor doomu aadama te doomu aadama yi bari na lool ñuy jàmbat lu leen gàllankoor kon mi ngi noonu fàllaxeeg naasi la falaxinaas bi nag diggante aaya bu nekk da ngay dugal ahamun saqakul alawun yasun mu ismu jalal fukki yoon ak benn nga koy baamtu onze fois fukki yoon ak benn kon loolu yaakaar naa leer na ci bopp nit ñi kon ñoo ngi leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa